xam naa yéen tamit ñëwal rek ñu ngi lay nuyu. non complicité bi moom xoolal ñëpp xam na ni rafet na sama digganteeg moom te lu ma ko wax tamit vraiment dina ko def te maa ngi koy ñaanal sëyam bi tamit barkeel bokk ci sëy ñu bind ci aras loolu rek laa koy ñaanal ak wér ak wérle waaw xam na ni sëyu xale yombul euh, comme ni ñu koy waxee mag ñee ciy jàpp tey boo amoon looy wax borom këram lan nga koy dénk ndax coow li bëri na wax ji bëri. borom këram waxtaan nañu yaa ngi dégg moom ak yàlla kon nag loolu dal xel rek laa ciy def ci bàkk sëñ Touba. di ñaan témoignage ngay def ci sa doom parce que ku nekk xam na ni siiw na ci ci àdduna bi ñëpp a ngi coow ci moom tey lan ngay wax. loolu yàlla moo koy def man defuma ko moom defu ko yàlla moo koy def. man mi sa affaire daf may ëpp doole lekk léeg mais damay xam ne mbiri yàlla la mënuma ci dara li ma mën di ko conseiller ak di ko ñaanal mucc ak mucc le loolu rek. loolu moo ci amee mu góorgóorlu te jéem a déggal jëkkëram du leneen. leneen lu mu bëgg mën na ko am ndax xam naa ne liggéeykat la man mi bàyyam sax xam moom a gën a xam lu ñuy wute alal kon nag na gën a góorgóorlu rek loolu daal laa koy ñaanal dégg nga ak jaam ak salaam dégg nga voilà monsieur monsieur Mbaye. ñu lay nuyu. ndax ki nga lool yoo xam nga da ngay dégg ërëm ak ki ngay yëg ko sant normalement réew mi dafa fi dara faat am jom miin ak yooyu yaayu arab bu baax bi tubaar fa kàlla macha allah bokk ndeyum awa gay bu yàgg lool tubaari kàlla lii tey jomb la lu mën a nekk bëgg arab nag bëgg yaayam ci nag arab teg ci bëgg arab teg ci bëggam la ko arab def ko fa kàlla macha mooy di dañuy zible wala écart Touba Mbacké soo di ñaan ngeen na fan Mbacké jàmm suñu xol dafa sedd wuñ nee na ku fekke sëy bi yàlla na nga fekke ngénte la munu laa fay waaye yàlla mi ampa pay na la yàlla fay nee ba ngeen àndee démb la te dara ñaawut nee na ku sonn yaa ci gaaw ku jaaxle yaa ci gaaw di koy gaynde Fatma nee na problème bu xar yi sa xar ji am yaa ci gën a gaaw nee yaa baax yaa leen di digal lu baax yaa leen di jiite nee na yal na nga am jàmm nee na seen ànd bi yal na ngeen nekk benn say yàlla bu ngeen tasaaroo. nee na sa kër la ñëpp yi daje. nee na dañu dañu teg seen kër ñëw sa kër. te bu nu dikkee lu baax rek ngeen fa nekke defante lu baax wax lu baax ngay togg ci mbana di yekk ca booli yàqoon nag dafa dal fa mu daan dal. noonu nga nàmpe loolu nga nàmp waaw. nee na tegu leen tegoo leen bët te it fa ngeen dëkk tegante bët rek fa nekk waaye tegoo leen bët ruute mbalewu jaxase woo yal na nga yeggale sa sago nee na lu nit am ci lu baax yéene nga ko Fatou Diagne yaa baax Maye Diagne Demba Tabara Diagne Demba bu ñëpp ne yow ñu ne yow yal na la jig yal na mel na doxum galaas lii ma yor nag teel ma monsieur journaliste teel ma. ñaari junni. ñaari junni. ci Awa Gueye jëm ci Fat sama waa sama doom sama xarit. waaw waaw ah moo joxe ñeenti junni. vingt ci Awa Gueye jëm ci Fat Mbacké. ah awa lii lu joxe na juróom benn junni. trente mille ci Awa Gueye jëm ci Fat juróom ñetti junni ci sama doom ju rafet Awa Gueye jëm ci Fat Mbacké doomu ndayam. fukki junni woy fukki junni. et eh waay cinquante mille cinquante mille. ba ma la joxee cinquante mille. pareegul day dem. maa ngi leen di bokkante ki ñeenti junni la. dëgg la muy fukki junni. lu mën a ne. naa ko waaw ci awa gay jëm ci Fat Mbakke awa nii rek lay mën a demee yaa juddu ci réew mi dëkk ci réew mi di fi def lu baax waaw waaw nii lay awa gay yaa rafet jiko xaw ma danga koo juddu waale am na la ko yare waaw waaw yaa rafet ah! awa pareegul day dem soo ko iñaane woon mm-hmm. da nga koy soboote dëgg la waaye tubaar fakkal la masàllaa mm. ñaar ñi rek a mën a mm-hmm. seen ànd bii yal na ko yàlla yëg a ngeen ànd ànd bu rafet nag yow li nga wax danga koo jëf mm-hmm. réew mii ñu toll réew mii ni mu méttee tase weeru koor nga yëkkati fanweeri junni ñëw yëpp ko sa doomi ndey ji teel ñeenti junni ñaar fukk juróom ñett way awa baax waaw awaa geyo noobal nga waaw awaa baax man sama doom ji noobal la neleen kaar way neleen kaar noobal la mm. soxnaay sa yaay neleen kaar noobal nga maasàllaa sama doom ji yàlla nañ ko fekke te taw ko ba léegi ci gis allahumma amiin tubarkalla macha allah waaye nag tey nee ko Fatou ku fi ñëw rek tubar fa kàlla macha lebal si wala dalaa fay ndax tànqam lu woo kenn ba tax na bàyyi Modou Kane masa sa taag ma sa yar ndaak sa góor ki la bëgg dooleel mu yàgg lool tubar fa kàlla macha allah ndaw talam day ñëw ci yow ndax nee na tubar fa kàlla macha allah boo wootee lambe sax day ñëw indi ay morsom takk yaa bëgg bàyyi Modou yaa ko doyloo yaa ko sopp yàqaloo ko dara riita mbale woo ko fenn Baye Modou loo sol moo ko ñaw te tubar fa kàlla macha allah nag couturière nga mais dangaa yàgg ak Baye Modou man rond point ma yàgg fekkee tubar fa kàlla macha allah ba tax na Baye Modou kat mooy ñëw ci fan Mbakke. Baye nee na mi ngi lay ñaanal sa sëy bi barkeel mi ngi lay ñaanal nga sax dàkk ci sa sëy bi tubar fa kàlla macha allah ku ne xam na ni Baye Modou kan ak ni mu mel ak yow ma sa tàgg ma sa yer ndaa ku xam ne ni muy def ay jigéenam. jigéenam bu woote loolu lambe tubar fakal la macha allah day indi ay morsom takk te ci weeru la te takku jàkk lañ def Baye Modou nee cinquante mille ci faatu Baye Modou nee na masa ndaak suñu góor ki ñu dooleel ki ñu bëgg ki ñu fonk lu ñu xewle mu taxaw ba mu jeex takk cent mille ci Baye Modou kan tubar fakal la macha allah miwlu bi borom sowrum bi ci Masalikul Jinaan borom sowrum bi ci Cambérène 2 teel a xëy guddee wàcc chéri maam jaara bàyyi Alioune Prince 150 000 la laal Fatou Mbacké te dafa tombé koor defuñu dara takku jàkka tubar fakal la macha allah nee na na sëy bi seddu guy te jik la nee na nga sax ci dàkk yàlla defal la ci njaboot gu barkeel tubar fakal la macha allah damaa bëgg nag yéen internet bi ngeen xam ne Fatou Mbacké lii mu rëkk bàyyi du Kara ko ñaw tubar fakal la macha allah heure ménage rek heure bi jot nga dégg heure ménage madame Mbaye tubar fakal la macha allah nga yeggaleeg sa sago dama kontaan ndax lii tubarfakalla macha allah dina doon ci lu bëri si ndax dañ ne woon du ci am ñii ne du ko def mën ma wax sama xol dafa fees vraiment. monsieur Mbaye mu ngi fi. lan ngay wax monsieur Mbaye. ah monsieur Mbaye dama koy ñaanal rek di wax yàlla ma yàlla bàyyeek moom ndax nit ku baax la koo xam ne daf ma bëgg. bëgg bu sincère wéttali ma accompagne ma assisté ma ci lépp ba yàlla boole ñu tey ñu seen mu nekk sama jëkkër yoo xam ne macha allah laf car yàlla na ko yàlla defal ak dama ko bëgg. ba mu yàgg gisatul ci réseaux sociaux yi nga def benn ah, àdduna booy dox ba ci yàgg da ngay stand by sa vie xool noo koy programmer ak noo koy organiser loolu rek dama dox ba ci yàgg ma xoolaat xam li nga xamante ne mooy dëgg te mooy mujj ma concentré wu ci yàlla def ko tey mu daal di mat loolu rek na du leneen. waaw wax aw buur këram. aw buur këram. <laughs> <laughs> damay dama koy wax rek yàlla defaral ko jàmm rek sama jëkkër jo yàlla bàyyi ma moom kenn bañ a xaj suñu diggante ndax vraiment nit ku ma bëgg la man tam ku ko bëgg laa ñu génn génn bu neex bëggante lool bu bëgg ma am 4 mois yàggul waaw <laughs> ma koy ñaanal jàmm rek yàlla na moom rek benn noonu bañ ñu mënal dara kenn bañ a dugg diggante parce que sama frère la sama papa la sama jëkkër la sama xarit la sama la waaw ma bëgg lool bàyyi moo du ma sa tàg ma seen sama góor bi nga xamante ni lu ma nekk moo ci bëgg ma yéene ma jàmm accompagner ma yéene ma nag lu baax nag lu may dugg rek mu kontaan ci di ma ci conseillé li ma ci jàmm di ma conseillé ci lii ma dugg tey moo ma dooleel ba ma agsi fii loo xam ma sëy mooy taaru jigéen sëyal mm-hmm. bokkul ci càmmiñ ji may découragé mm-hmm. càmmiñ bu ma may jom la mm-hmm. bu ma dooleel di ma sëy normal géré ay famille ndax mis moom dafa war am ay rakk normal ah, <laughs> jaajëfal merci beaucoup Fatou Mbaye maa ngi leen fa fay yéen waa Sans Limite. <laughs> tey dañuy ñëw ñëw ci li nga. son Médoune son. aji. dégg naa ko lool aw ma ci benn stress nag boo ma si baax sama xel aji aji sama journaliste aji. micro bi sama micro papa ñu ngi lay nuyu waaw doole ñu may tuuti caméra bi tuuti ngir yàlla tuuti papa nuyu nañ la tey ñuy maye sa doom di Fatou Mbacké di waaw d'accord loolu laa ko doon ñaanal bu ma jullee loolu laa ko doon ñaanal déggal na ma maanaam lu bokkoon ni bàyyi lii dina ko bàyyi. Ah, xamaa jëkkëram tamit. dana ko moom jàmm maa ngi koy ñaanal rek. njaboot bu barkeel ak wér ak xéewal. Mhm. loolu laa koy ñaanal. ah mu ngi nii yaa ngi wax ba doom di jooy. waaw ah, mooy seen relation yéen ñaar. waaw. ñu lay def mën a. d'accord même bu ñu dul déggante lu bëri sax. am nañu entente. ndeysaan yaa ngi dégg. ndeysaan moom mu nekk dafay xam ni ñu nekk fi ñu bëgg fi mu toll nii. ñu dégg dañuy déggante waxtaan. voilà hmm. lan ban message ngay jox borom këram di sa goro. monsieur Mbaye waxtaan nañ ko pare. xam xel moo tax ma jox sama doom. d'accord jàmm ak salaam. Hmm. yaa ngi koy ñaan jëm sëñ Touba. lépp lu ñu am rek la barkeel. Hmm. loo koy dénk moom nga xol bi tooy na ba mu ngi jooy. muñ. ndeysaan ak góorgóorlu jàpp jëkkëram sëy ak continuer liggéey bi mu doon def yaa ngi dégg c'est important yaa ngi dégg sama njaboot yaa ngi dégg man nag ci jàmbaar laa ko xam wax dëgg yàlla waaw waaw kon nag yal na yàlla ko jëkkëram c'est important allahumma amin allahumma